de li république woote ko euh, fële ca euh, pale ba euh, amal dialogue yi lu mu bëgg amal foofu daal ay waxtaan la waxtaan yoo xamante ni xam naa ni politique dina ci dina ci bokk dina ci saf-saf mais am na ñeneen yoo xamante ni Georges Nesta heure bi dañu woote woon ni dañuy def ñoom aussi seen contre dialogue parcelle lañ koy amalee mais fu ñuy jógee mooy kër Ousmane ko dem jëli ji ko yóbbu ko fi nga xamante ni mooy parcelle fi ñuy defee seen contre dialogue mi ngi mel ni loolu mujjut am de. Ah loolu kay moom. ca sera très difficile boo boo gisee dispositif bi nga xam ne moo nekk fële kër Ousmane Sonko nga xam ne euh, ay char ak ay camion de police ak lépp ñu ngi fa nga xam ne nii mënuñ faa dugg wax naa la que léegi Biram Souley jàpp nañ ko. ak yeneen ak yeneen. Euh, pendant ce temps la fële nag euh, si palais de la République salle des banquets président Macky Sall mu ngi fay recevoir ay ay sénégalais nekk ay hommes politique ñii nekk ay. Euh, naka laa koy tuddee sax ay membres de la société civile ñii nekk opposition entre euh, entre guillemets parce que opposition bi ma fa gis daal bu xaw a am doole mooy Khalifa sal yeneen gars yëpp bon seen tur rek laay laay gis dialogue moom kenn bañu ko parce que quelque que soit nu mu mënta dem si démocratie dialogue dialogue ba euh, def si baax. parce que même état yoo xam ne pays dëkk yoo xam ne dañ nekk en guerre comme Ukraine fële ak Russie mais ñu ngi dialogué forcément parce que xeex boo gis rek si dialogue lay mujjee à plus forte raison nag dëkk boo xam ne dañu am ay divergence profonde yoo xam ne dañuy menacer li lii di stabilité wu dëkk mais man bi ma déggee ay yenn termes de référence yu ñuy énoncé si dialogue bi man dama ne mais lii ban jaloog la non loolu fake news la. fake la mais am na yoo xam ne si si lu ñu lu ñu biri noonu boo gisee nu ñu bëree foot rek nga xam ne lii fake news la mais am na si loo lu si nekk dëgg am na lu si nekk dëgg euh, c'est pas nag qui est vrai dans ce qui est dans ce fake news là mais y a y a un truc de vérité quoi. Mm-hmm. mais man li ma soxal rek mooy lan. lu tax quelqu'un comme euh, le maire de Dakar Barthélémy Dias mi nga xam ne il revendique la paternité de ce dialogue là de l'appel de ce dialogue moom démb dégg nga ko nee na moom du dem. xanaa du leader moo tax. <laughs> non moom nee na est-ce que duñu waxtaan question yu gën a sérieuses tamit. non moom non moom nee na sérieux parce que yow mënoo ne yaa woote dialogue bi ba pare. dialogue bi à 24 heures de dialogue. mu ne bi ma dem leader yi ñooy dem mais leader yi mais non leader yi ñooy dem mais yow mënoo ne yaa woote ba pare te demoo. woote non non loolu ça n'a pas de sens. donc ça veut yow woote woo. yow yow mënoo convoqué xew ba pare. yow nga ni wootewul waay. Ah, mais moo ko wax bu mu ko waxee tamit bu te bu mu ko waxee kenn demantiru ko. Mhm. bu mu ko waxee kenn demantiru ko kenn waxul de déet sawaay li ngay wax ni lu dëgg donc je considère que lu muy wax am na li si nekk dégg mhm. quoi qu'il en soit tey dialogue bi lu ñu mën a dialoguer dégg naa ñu ne wax ay le coût de la vie ak lii du dialogue politique dialogue national la oui dialogue national la parce que citoyens yëpp la ñu invité dégg naa. Mhm. mais comme les nous les dix huit millions de Sénégalais mënuñ mënuñ faa teew ñu tànn si ay ay quelques représentants mais dialogue bu gën a soxal Sénégalais instant yi. xaw ma noo koy woodee di naan woy on va parler des ressources nationales des ressources euh, naturelles on va parler de de l'école on va parler de la santé loolu yëpp c'est des circonlocutions mais li Sénégalais gën a bëgg mooy jàmm te jàmm mënul jàll te waxoo ci processus électoral processus électoral boobu mënoo ko wax te waxoo ne trois waxoo mbirum troisième candidature du président la république mhm. loolu moo gën a soxal sénégalais yi mu nekk nii loolu leen wax leneen lu mën a indi jàmm si réew ma rek moo leen moom la ñu mën a dégg te loolu mënul mënul weesu si question yi mu la évoqué nii. Mhm. donc tey tey bu ñu fa demee ñi nga xam ne ñu ngi foofu te yow naka mën a wootee dialogue. oui alors des acteurs clés yoo xam ne de la vie politique la nation ñoom dañoo dañoo dañoo décliné donc tu vas dialoguer avec kii. dangay woote dialogue ngay wut ay ay des des trucs yoo xam ne ay nit ñoo xam ne. vraiment dañu ne woy ay parti politique la ñu yore mais boo demee seen parti ki ñoom ak seeni i jabar rek ñoo fa nekk ak seen parfois seen doom sax bokkuñu ci parti yi waaw ñooñu nga bëgg wax ne ñooñu mën nañu wax ba eh, eh, indi jàmm ci réew mi ñi nga xam ne nag ñooy les les plus représentatifs sur le plan politique parce que c'est pas parce que ñoo ñoo fi gën a bëri wax wala ñoo si gën a mën xeex wala ñoo si gën a ñeme no mais c'est parce que euh, lii di nu mu tudd sax lii de élection yi ñoo ko moo ko moo ko wone maintenant je ne dis pas que nag homme politique yi ñoo war a waxal sénégalais yi non non non parce que homme politique yi boo gisee on a peut-être trois cent et quelques partis politiques mais ñu bind si fichier électoral bi ñaata lañu ay six millions. six millions te du six millions ñoo ñooy voté ay trois millions ñooy voté à peu près est-ce que trois millions yooyu war nañu mën a toog waxal les dix huit les dix huit millions de sénégalais donc nañu seen dialogue y a pas bu leen neexee ñu ne ñun. du ñu dem ñooñu ñu ne dañuy def un contre dialogue mais kenn mënu si dara aussi on a vu aussi euh, ay ay nit créer un contre sommet. d'accord gis gis nañ fi ay nit aussi naan dañuy contre manifester. contre boobu amul problème dina ku nekk dialoguer comme ñoom ne nañ euh, waa opposition ne nañ ils vont dialoguer avec le peuple. d'accord fële ca Parcelles Assainies. Mhm. man su ma nekkoon euh, tey autorité kooku loolu ñoo ñu ñuy woowee autorité. te ñooy tas manifestation yi nañ leen bàyyi ñu dem manifester yi def seen contre dialogue fële ca parcelle ba déglu leen seen proposition président la tamit ñu mu woo ba ñu dem wuy ji ko fële ñu dégg génnee seen seen euh, seen décision ba xam ndax sénégalais yu ban décision la ñuy adopté ak kan ñàkk yan dialogueur la ñuy déglu ñu nekk pale fële wala ñuy nekk fële ca nu mu tëddee sax si parcelle. Mhm, mhm. maam Birame contexte bii nii euh, bu ñu si wootee waxtaan euh, quoi de plus normal mais problème bi mooy euh, kii woote waxtaan yàgg nay woote waxtaan ak ñu bëri aussi dañuy poser problème mu sincérité dialogue bi est-ce que ñiy poser yooyu question ba am yenn inquiétude yi nekk na loo xamante ni lu nit war a mën a am la. mais boo pour nga natt sincérité bi rek da ngay xool dialogue bi fi mujjee am lu président waxoon amatuma lu may njuuj njaaj. Mhm, deux mille dix neuf la woon. Mhm. deux mille dix neuf ak léegi ñaata njuuj njaaj a am. maanaam su du ma bàyyi bàyyi naa njuuj njaaj mooy yaa ngi ko doon def. Mhm. ba nga ne bàyyi nga ko sax nit ñi gisuñu nga bàyyi ko parce que gis nañ fi loolu fii xew boobu ba léegi teguwul fenn bu dul njuuj njaaj. ay liste élection yu ñu dagg ci digg bi bii dem ñu ne bee bokkul ay local ay liste yoo xamante ni rejeté nañ leen te teguñu leen fenn. Mhm. yooyu yëpp xew na fi. xam nga dialogue bi moom jarul ñu koy woowee dialogue national nañ yem rek ci seen moo dialogue te loolu day wone feebar gi Sénégal feebar fi mu toll nii. Hmm. yow bu nekkee ne dañoo nekk ci euh, euh, euh, état. oui nekk ci inondation ni ko Georges Nessa waxee sànq dialogue nekk loo xamante ne nii lu ñëpp privilégié lu ñëpp taamu la jàpp ne kat à un moment même bu dara xewul sax day baax. acteur politiques yi sur des questions essentielles ñuy daje di waxtaan ñu dem ba tey jii nii à quelque mois de la présidentielle ñu ne dañuy def dialogue tuddee ko national ñii ne parcelle la ñuy daje ji ñii daje ji euh, présidence de la république loolu rek ça montre une division grave de la euh, classe politique mais également des sénégalais ci seen bopp hmm. loolu da koy wane léegi bu sénégalais yi divisé ah. kan mooy responsabilité bi kan mooy yor responsabilité bi. Mhm. du président de la république. Mhm. du président de la république léegi yow nan nga mën a waxee dialogue national. Hmm? waa F24 ak ce qu'il représente dans le pays ñoom jegewuñu fa nga ne pourtant c'est un dialogue national. dialogue national pendant que yaa ngi koy ubbi le principal leader de le leader de l'opposition munul génn këram. nga ne yaa ngi dialogue. démb nga posé woon question bu pertinente bu jógoon tey jii ni day dem ci palais ba du mën a génn. ma ngoog bu jógee di dem ci pale ba fu muy jaar. Mhm. bu bu bu jógoon bëgg a dem ci pale ba fu muy jaar. Mhm. xam nga euh, euh, euh, déjà man li ma gëm mooy Sénégal fi ñu toll nii yàqu-yàqu yi dañu bëri tellement tension bi toll foo xamante ne nii pour man dialogue nécessaire na mais pas dialogue dans condition la ah, waaw euh, je je te donne une information. oui. Euh, Macky Sall nee na Moustapha mooy diriger dialogue bi. Moustapha Niass. waaw moom la moom la Macky Sall wax léegi te si dialogue bi nag moom si boppam Moustapha Niass mooy représenté Macky si dialogue bi tamit. waaw mooy diriger dialogue bi pendant par euh, arbitre et parti. <laughs> waaw. Moustapha Niass assemblée nationale. ancien président de l'Assemblée nationale. d'accord voilà mooy conduire mooy conduire dialogue bi mooy mooy nekk représentant aussi du président Macky Sall ci dialogue bi. non déjà da ngay ne. nomination président mm-hmm. AFP. Mm-hmm. AFP nekk membre Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. Macky Sall jiite Benno Bokk Yaakaar. envoyé spécial président Macky très bien donc Moustapha Niass mun na am jaar-jaar mais c' est pas une personnalité neutre boo xamante ne nii nit ñi mun nañoo am ci moom mais yow koo xam ne dañu la jox président assemblée nationale ngay jooy kooku xam nga ne loo ko digal mu def. képp képp Moustapha Niass ce n' est pas une personalité boo xamante ne nii nit ñi non de toutes les façons ñoom <laughs> ñoom ñoo nekk di lijjanti seen i dialogue ak la fay xew. Mm-hmm. man moom damay jàpp ne. tey Sénégal fi mu toll nii même bu nekkee dafa soxla dialogue nekkul dialogue bi le président Macky Sall di woote. parce que non seulement il se pose un problème de sincérité kii woote est-ce que nit ñi wóolu nañ ko ba jàpp ne buñ ko fekk jee lu ñu fa waxtaanee dina jëriñ réew mi te dinañ ko appliquer mais dialogue boo xamante ni on te dit que mooy xalifa Sall far la foofu la war a mën a jaar ba bokk foofu lañ lay wax ne. pour Khalifa Sall mën a bokk ak Karim Wade il faut peut-être amnistie am amnistie boo xamante ni dina tax kenn dootul waxati waxu Aliou Sall ak sunu pétrole bi kenn mënatu la wax yeneen ak yeneen ak yeneen dossier yoo xamante nii pour Khalifa Sall bokk il faut ñu effacer ko. Mmh, mmh, mmh, euh, balaa ngay continuer euh, Mame Birame naa ñu taxaw tuuti ci Moustapha Niass parce que aussi euh, bu ñuy fàttaliku rek moom Moustapha Niass ba muy nekk président assemblée